ay nit yu nga xam ni ils tiennent des propos yu nga xam ni wóor na leen ni lii dara amu ci lu tax parce que c'est pour des privilèges et des prébendes parce que loolu lañ tàmmal nit ah pour des privilèges et des prébendes dëgg bu amee dañ koy wax dëgg bi mooy dañu barricader Ousmane Sonko dëgg bi mooy ils sont en de violer la les droits de l'homme dëgg bi mooy ñu ngi ñu toj dafa doon wax toj am ñu ñu dem toj kan moo ñu jàngal toj kan moo fi njëkk toj oto xale yi bu ñu gisee nga jël dem toj oto Ousmane Sonko extraire ko vous amenez la violence vous montrez ça aux enfants. non xale yi bi ñu dalee bi ñu dalee toj di yàq du tey. waaw ah, mooy toj yeeg yàq yi yàgg na. non dama bi ñuy extrait Ousmane Sonko loolu barki Demba Ndiaye la violence yàgg na. bi ñu bi ñu bi ñu extrait Ousmane Sonko dama ni bu fi yàggee yàgg yàgg. c'est pas à l'État mais les organes de l'État defal ndànk. en les organes de l'État d'organiser ça non dama lay wax. violence en am na fi booba tojagu leen auto euh, Ousmane Sonko. mais dama ni la un État doit donner l'exemple un État doit donner l'exemple c'est un modèle yéen modèle ngeen war a doon. waru leen def dara non dama lay wax rek. dama lay wax ñi ñu jiite réew mi laa wax. je fais partie de l'État gënoon ma jàng ñi jiite réew mi ñu ñu ko dégg ñu yore caabi jàmm ji te di indi ay laa wax li ma lay wax nii wax naa leen ko mënuloo yore caabi jàmm di indi ay gis nga jàmm ji c'est clair net et yi pour mu ñëw y a aucun problème. mais pourquoi bëggu leen dem foofu y a plusieurs injustices qui sont commises aujourd'hui da ngay gis ku toog ci ñoom appelé à l'insurrection ouvertement ni nañu rey diw nañu toj diw nga dégg ñuy saaga ay ndey ñu ni parti kenn du leen woo mais c'est un problème dof de euh, le rappeur là <laughs> di dafa saaga rek ñu dem jàpp man gis naa ay avocats yu taxaw di saaga ay ndey waaw ñu bàyyi leen loolu day indi xol bu tàng si réew. day indi. Euh, Adama s'il vous plaît. bàyyi mu terminer non laissez-le terminer s'il vous plaît. allez-y allez-y Birame. non ñoom xam nga tubaab bee leen jàngal daf leen jox stratégie de communication. mooy bu waaja dee wax dëgg ko. ñun xam nga ko moo jàngal Afrique. ñun gëmuñu ay thèse antithèse synthèse dëgg la ñu xam.